allahuma salli ala sayyidina mbokk yi nga xam ne yéen la ñu jàkkaar lool noo ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi leen di baal xaq tey ñaan tam ngeen baal na xaq noo ngi siyaar nag mboolem kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo ŋànk diine ji di ko sàmm nuy ñaan yàlla yàlla sàmm leen naka ñuy sàmmee diine ji di jiital na ci siyaar kilifa yi diine yi Cheikh Sidi Mokhtar xalifa xaadim rasul noo ngi koy siyaare bu baax di siyaare mbooleem sëti sëriñ tubaa yi ak seexi sëriñ tubaa yi ak mbooleem taalib yi aju sëriñ tubaa xaadim rasul dellu si nanu nag di leen nuyu yéen mbokk yi nga xam ne yéen lañu ñu jàkkaar lool ci seen émission bi nga xam ne moo di jataayu mukallaf ñu baaxoo leen ko dégtal may ànd nag ci waxtaan wi toujours ak sëriñ Basiiru Sekk xam ngeen nag déggoon nañ leen ci jamono yi ñu génn itam ne leen amoon nañu ku ñu fi dalaloon te waxtaanam doy luñ ci woon naam duñ ci doyal waaye ñaanaat nañu ko itam te itam mu dellu siwaat àndaat ak nun mu di sëriñ Abdoulahi Sarr di taalibe sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi sëriñ Abdoulahi Sarr dellu siwaat na ngir bëgg a ànd ak nun ni mu ko waxee woon rek nee na moom doonte soldaar la kon soldaaru askan wi la fu askan wi fekk rek man koo maajloo loolu itam nekk na lu am solo ndax ki nga xam ne mooy jëruñam di sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi yaakaar naa ne euh, lépp loo xam ne laal nga ci moom wala képp ko xam ne yaa ngi tëggoo sëñ Cheikh Mbacke noonu nga war a mel muy lan mooy di jëriñ doomu aadama yi te itam di sonn ci ngir doomu aadama yi di xamle sa xam-xam di dimbale sa doole. kon loolu Abdoulaye Sarr moom itam doxal kon ñu ngi ko sant di ko gërëm. mu mel ni xam ngeen ne baaxoon nañu nag émission bu nekk ñu jël benn thème. lenn nag ci jikko yi nga xam ne jikkoy doomu aadama la def ci waxtaan sunu kemtulaay kàttan duma ko noppeeke wax gënuñ leen xam ba tax ñuy wax dafa fekk na xëy na yàlla moo ñu nattoo lii ndax doomu adama yëpp kenn ku ne ak fa nga féete kon noo ngi leen di sant ci loolu tey nag li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ak yéen muy jenn jikko la ci jikkoy doomu aadama ki jikko joo xam ne jiit eh, doomu aadama mënta baax mukk te jikko jooju soppeekul ci moom loo bari bari bari xam-xam te yor jikko jooju sa xam-xam dutul feeñ euh, jikko jooju moo di ban moo di kañaan kañaan lanu fas naa waxtaane tey sunu kéemtalaay kàttan xam ngeen ne kañaan yàq na lu bari xam ngeen ne nit bu añaanee du noppalu du am jàmm xolam du sedd sunu jàmbaar ji sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul tënk na faf kañaan ci ñaari ay bayit nee kañaan yomb naa xàmmee ci lenn nit ku añaan du nekk njiit waaw nit ku añaan nee na sëñ du nekk njiit loolu rek doy na sëkk ci ñu xam ne kon kañaan baaxul wolof dellu wax ne mbooleem jikko yu bon yi di jikko yu ñaaw yi kañaana ci gën mu mel ni dañ ko ne lu tax mu ne ndax jikko la joo xam ne ku mu nekk ci yow koo koy fàddloo bala koo fàdd yow mu iñaan lay jëkk a fàdd kañaan noonu la mel nee na mboolem jikko yu ñaaw yi kañaan ci gën a gore koo koy fàddloo bala koo fàdd yow mi ko añaane yow la jëkk a fàdd loo tax kañaan jikkoy ñaaw yi moo ci gën nga gis na itam kañaan yàlla ci boppam néewaana muy àddu ci yenn jikko yi waaye yàlla ci boppam tudd na kañaan ci naas kon loolu firnde la ci kañaan kañaan nag muy ci ku doon yàlla def ko ci yow nanga xam ne yaa ngi jikko ju bon yaa xam ak góor nga wala jigéen nga mag nga wala ndaw nga surga nga wala ngay kilifa ku mën a doon waaye bu kañaan xasee nekk ci yow bu kañaan xasee nekk ci yow na la wóor ne yor nga ci màndargay sawara yi màndarga moo xam ne dañ tël ba faw tànk kañaan gaa ngi ci yow gis nga nit ku añaan dafay mel ni day bëreeg yàlla waxtu ne mu ngi xeex ak yàlla te jikkoom ak ko yóbbee xam ngeen ne xeex ba xeex jeex xeex ak yàlla ci yées ndax doo ci jëlee ndam te foo ànd ak gàcce lu tax mooy di jéem a daaneel ku yàlla yëkkati nit ko ñaan noonu lay def di jéem a yëkkati ku yàlla daaneel nit ko ñaan noonu lay def di jéem a xeebal ku yàlla naw nit ko ñaan noonu lay def di jéem a naw ku yàlla xeebal ku añaan waxtu woo amee lu baax yéeniwu la ko xolam tàng na ku añaan waxtu woo yokkoo xolam tàng na ku añaan waxtu wu nekk bu sañoon moom rekk mooy am bu sañoon moom rekk mooy am jàmm kenn ku ne ma lay dëngal sa ab noppam ngir déglu ci yow ab safaan lu mu la reexee nit ko ñaan mel noonu nit ko ñaan yéenewul kenn dara te dañu ne lépp loo bëgg am na ko yéene doomu aadama yi ndax loo bëgg a am rek soo ko yéene doomu aadama yi yàlla may la ko boole kook doomu aadama yi waaye su fekkee doomu aadama lu mu am doo ko yéene nga añaane ko yàlla du la ko jox ba mukk nga dëkk nag ci daa iman ci xol bu tàng te ka ko añaan nag yàlla daf koy jox waxtu wu nekk jamono ju ne saasu ne ndax yàlla du reyal kenn nag ab noonam kon loolu nangeen bàyyi xel ci ne kon kañaan daal ñun ñëpp nañu bàyyi suñu xel ci ne kañaan daal jikko ju ñaaw la sëñ Basiru kañaan tey la ñuy waxtaane ah jërëjëf sëriñ Ibrahima ah, kon ñu ngi nuyu ah, ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaar ñëpp ah, di nuyu sang bu tedd bi ñu ko waxee ñëpp xam ko xanaa nag tey ñu jéem a dugg nag ginnaaw tudd nañ borom dëkk bi ma dugg dugg ci genn kër nag siyaare fa rek muy seex Mouham kër seex Mouhamadul Bachir daal mi nam fekk fa seex Mouhamadul Mountakha di ko siyaare mook waa kër sëriñ Bachir gépp dugg fa na ci benn néeg di kër ma di maam Thierno Mbacke moom seex Mouhamadou Moustapha Serigne Bachir di ko siyaare di siyaare waa kër Serigne Moustapha gépp Serigne Ibrahima waxati nga lu am solo duggati nga ci thème bu yaatu bu yéeme bu kenn mënta jeexal. ndax ni nga toog di wax ni dama ci dégg ay kàddu yu doy timaan xam nga dañ ne kañaan ñenn ñi ne añaan mu mel ni kañaan boo koy seet ki nga xam ne dafa nekk ci moom mooy ki nga xam ne mooy kañaan ci baatu olof kay ñaan bi maanaam dafa mel ni ki kim nekk ci moom du dëkk du jóg ci di ñaan day dëkkee it añaan nag añaan mooy añi añu añu du amum añam añub jàmbur lay añi ndax la mu yéenewul kenn am dara moo tax du am dala waaw am ñu wax ne kañaan jaan la boroom lay mat ndax am jaan sax wax nañ dëgg dina ma ci sama xel mu gàtt man waaye dañoo waroon ne jaan ju mag ji ju mag jaa mag a mag ndax jaan yi mën nañoo matt lugg ñu tëgg dënd ñu jiin dënd mi luggkat yi daje si lugg mu wàcc waaye jaan ju mag ja mooy loola ñuy wax yeew kañaan day modd boroom mu faatu day laxasu borom puddóog moom borom faatu mu sax ko wan na ko ni yeew di def lu modd kon kiñaan moom ni nga waxe léegi ne ci jikko yu ñaaw yi moo ci gën a moo ci gën a moo ci gën a baax <laughs> loolaa ngi ci ndax kiñaan moom balaa lor kenn lor borom xam naa ne borom lay jëkk moom doog a jàll fu mu jàll waaye xanaa sëriñ Ibrahima kàddu yooyu nga waxoon rek moo tax ma sànni ci kàddu yi waaye li may def kon mooy daal di jox sëriñ Abdoulahi Sarr kàddu gi ñu daal koy mën a déglu ci añaan kon sëñ bi kañaan a ngoog jërëjëf sëñ Basiru jërëjëf Ibrahima ñu sant buur bi tabaaraka wa taala ci moom mi nu maytal ak fekk ba nu dajawaat fi ci studio alazhartouba.com ndax ci bégal rek sunu bokki jullit ñi sunu bokki taalibe yi bokk islam bi ak bépp auditeur boo xamante ne bi yaa ngi ci site bi di ko seetaan di ko déglu xaa mën naa am li ñuy wax amal na njëriñ askan mën naa am bu ñu amul njëriñ mais teewul ñoom ñëpp ñu ngi ci consacré wu seen temps di ko seetaan ba tax euh, tey jii ñu toogaat fii ba la ñu dugg ci thème bu nga xam ne kenn mënu ko jeexal rek mooy ma nuyuwaat rek sama yaakaar tey ëllëg Eh, sëriñ Cheikh Mbacke Darou Rahman ak njabootu Cheikh Abdoulaye Mbacke ak njabootu sëriñ Touba gépp ak mboolem kilifa diine yi nga xam ne làmb ci àdduna bi yëpp yal nañu sunu borom may gudd li ñu ànd ak ñoom li ñu bëgg ci noonu ñu bëgg ko ci ñoom sunu borom yombal na ko ba ko eh, di sant rek nag eh, kilifa kër gi li ko tàmbalee ci kilifa gi ba ci gën a su ci gën a suufee Ibrahima di la nuyu nuyu lislaam bi gën a kawe rek di ñaanal sunu bokki dawlu yi nga suñu way dawlu yi nga xamante ne bii. diggante bi ñun yàlla baaxee nañu ba fekkee waat nu dajale waat na ba nu mën fee toog waaye am na ñoo xam ne ñii sunu borom tey ji fekk na ñu ñibbi nañ eh, nga ci suuf sunu borom yàlla na suuf wecc seen loxo seen kaw eh, di la nuyoo rek di la xamal ne tey thème bi nga indiiti doyati na émission boo xam ne bii eh, atum lëmm mënees na ko ci dox te des du jeex ndax iñaan moom dañ ne fangul muur waaye yàllaay may te iñaan fa mu ta balaa tàggoog borom rek dugal ko safara da koy rey dugal ko safara ndax iñaan day jeexal ab xol te ku iñaan ku ne rek gëmuloo yàlla te ku gëmulul yàlla ku ne rek ab yéefar nga iblis li ko dal kañaane ko teg iblis li ko dal kañaane ko teg mm-hmm. teraanga ju sunu borom jox yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko du fi amee mm-hmm. ba tax na moom tombam boobee nag ku nar sunu borom nar yóbbu safara ku ne ku sunu borom yóbbu la day benn tomb boobee la daan coppet ci kañaan def ko ci sa xol ko ci xolub kook hmm. ku iñaan koo dégg ñu la iñaan rek siis na te ko siis gëmoo yàlla iñaan dafa am kañaan am iñaan am iññe ñi am hmm. te loolu lépp xeeti lépp li leen jur lépp kañaan a leen jur yooyu ma lim lépp leen lu ci nekk doomi iñaan la xam nga mi ngi mel ni euh, jaan joo xam ne da ngaa nen ba tossan liiri jaan yooye kuñ dajal ku ne rek buñ ku matt ku ne rek jaana la mat noonu la iñaan mel ak iñee ñi ak iñeeti ki iñaan du yéene kenn am dara te fu mu dégg lu ñuy defee lu baax mën ko yàq yàq ko ki ki ki ki iñee ñi maanaam du jéem lenn lu baax te du yéene kenn am lu baax te ko am lu baax ku ne lu mu am ci man koo xam mu ko ci pexe yàqu ko kon yàlla ci yàlla musal kooku nag koo gis mu ñëw la kii dafa iñaan Ibrahima na la leer na leer yàlla ne ma ngay yor caabi buntu safara ndax ku iñaan du dem safara du dem àjjana mukk ndax ki ñaan ci fu muy nekk ci lay ne te nit ki mooy matière bi nga xamante ne bii bu baaxee sunu borom ne baax na bu bonees bu ko sunu borom xoonee mu am ay gàq-gàq wala mu am benn iñaan mu yóbbu ko ci safaan ba kon ngeen yàlla musul ci kiñaan kon kiñaan Ibrahima ubbi nga tey bunt boo xam ne bii buñ ci doon waxtaan ba ilaa yawmi diini du jeex ndax iñaan dem na ba ci kër yi ndax jox sunu borom jox nit teraanga mu di la ca teddal nga di ca tedd yow ci biir teraanga jooje di ca terlu te bëggu mukk mukk mukk mukk mukk mukk teraanga jooju jëm kanam yokku xanaa kay booy dund ci teraanga yi doomu aadama kay war ngaa ñaan teraanga jooju yokku waaye ka ñaan tax na bis bu yàlla sàkk da ngay ñaan teraanga jooju dellu gannaaw ndax mu ñàkk loole pour nga ma mën a tolloog yow pour ma ngeen mën a ànd ba mën a yem te yàlla yemalewul kon kooku yàlla ci yàlla musal ki ñaan dem na ba ci ki nga xamante ne bii mooy kilifa gi nga xam ne gi dafa ne ci ab service jiite ko te bëggul service ba avancé di lekk ci dund ci service ba te bëggul service ba avancé ndax lépp loo xamante ne bii service baa nga koy dox rek lépp lu ko mën a yàq na nga ko yàq ngir defoon nga ne tey jii fii nekk yaa fa waroon a toog te lopp ka fa toog la muy doxal te place baa ko loolu lu koy a tax yal na ci yàlla musal mm-hmm. kañaan dem na ba ci nit yàlla jox nit teraanga teraanga joojee mu leer leen la yow mi bëgg nga ko te yàlla def dogalul nga am ko ngay lu ñu tugg teraanga jooju nu mu ko amee ba xam am na ca gàkk-gàkk boo ko mën a gàkkale ba ñit ñi wan ko gannaaw loolu lépp kañaan ñaan dana kon indi kon yàlla ci yàlla musal musal ci bépp jullit kon kañaan dem na ba ci sa biir sa biir kër gi yow ci sa jëmmi bopp sama biir kër gi nga ci sa jëmmi bopp nga yor ci sa njaboot yor ci say jigéen ak say rek ak say say say say jegeñaale ñu gis ni nga yoree kër gi naqari leen am ci koo xamante ne bii bu sañoon tey jii kër ga tas ba mu toox di la ree loolu am na ci biiru mbokk yàlla na ci yàlla musal mooy noonu bi nga dëkkal muy fexe bon ñaan rek te di la ko te doo ko ko fooge ne boobu noonu yar na dem tuxu kon yàlla na ci musal kon Ibrahima kañaan buntu la boo xam ne bii kenn ku nekk mën na cee bay waaram man de bu ma xëyee li may wax mooy lu ma yéene doomu aadama te dul lu baax yàlla naa ko ci jiitu muy lu baax muy lu bon waxtu mi kon nag yal na nu yàlla may xol bu rafet bu nu mënee yéenee lu baax yal na nu yàlla dimbale ba bu benn jullit bu mu am xolub keñaan benn tomb keñaan ndax ëllëg ak si bu nu demee bay dugg ba àjjana du nu am lenn loo xamante ne lu man mën a gàllankoor la. waaw Ibrahima kon foofu laa yemale en attendant ba ba ngay ñëw ci ba ba ngay dellu siwaat ci man ma doog cee waxaat nag yeneen yi nga xamante ne mën naa ko cee yokk. jërëjëf euh, sëriñ Abdoulaye Sarr fa tabarakallahu waxtaan bi am na solo ah, man ni nga ko waxee keñaan day. loo xam ne mënees na cee waxtaane ay at waxuma laag nag benn émission bu matul waxtu waaye daal ñoo xam ne kañaan mu ngi fépp ni nga ko waxee mu ngi ci ay bokk ñu bokk ndey donte jenn la ñu bokk baay donte benn la ñu ngi ci diggante ay soxna ñaari soxna yoo yor ci kër yow boroom kër bi mu ngi ci service bi yaa xam nga jiite ko yaa xam nga nekk service bi dafa liggéey te yor kañaan lay màndargaal sax mooy nit ko añaan sëñ Tuubaa nii du nekk njiit waxoon naa ko ca tàmbali ba kon ku ko teg ci kanam mbirit du dul dox danga ko fay teggee ji rek su jiitee ab société du dox su jiitee am réew du dox su jiitee ab quartier du dox waaye bu jiitee këritam du dox nit ku añaan noonu la daraam du jebbi daraam du seq yi ndax lu tax mooy dafa yéenewul kenn lu baax te ku yéenewul kenn lu baax doo am lu baax kañaan dem na ba ci kilifa yi nga xam ne dañ leen na yaakaar ñu yore ay daara di xam le gis nga sëriñ daara dëgg-dëgg su kañaan nekkee ci xol ba ni nga koy xamee mooy waxtu woo toogee ci moom di waxtaane baaxu beneen sëriñ daara buy jàngalee ni moom da wax ba yeggal ne ko ah, moom day fa tabarakallahu euh, ku way ci njàngale mi la ku mën a jàngale la ku rafet mbind la eh, te itam alxuraanam lu wow la dangay wax ba yeggal mu ne ah yeewu na de du ne mukk wax nga dëgg yeewu na lay wax kañaan ngaa nekk ca xol ba ndax li nga wax ci sëriñ daara boobu moo ko neexut looloo tax du la mën a wax ne wax nga dëgg lam cay teg moo yaa ah, yeewu na de nga gis ne kon kañaan baaxul ndegam ki jàng alquranil karim ba di ko jàngale moom la kañaan nekk ca xol ba ba mu wax ñu xam ne kii kañaan a nekk ci xol bi rawatina keneen koo xam ne kii xëy na yow nekkul sëriñ daara bay jàngale kañaan nekk na ci ñaari xarit da gis ñaar ñuy ànd kenn ki yàlla dogal mu am lu bees moo xam ab montre la moo xam mbubb la moo xam aw dàll la moo xam lu mën a doon waaye ki muy àndal ñu xamleel ko ko muy ànd ak moom guddi ak bëccëg su ko ko wanee ne ko xool nga sama mbub meewaay te fekk na mbub mi ñu bari yéem ko ñu ne tiise bee ko cher mètre bee ko cher ñaw bee ko rafet waaye ku añaan ke saa yu ko tegee bët lam cay wax mooy mbu mi cher na waaye gis nga waaj bi mu koy ñaw wuñ ngi mën na mën na ko nii wala mbu mi day tiise bi dafa gaaw a day gaaw pour yi wala tiise bi mel nii day léegi sax dafa wàcc léegi nangam lay jar te yàlla xam na ne buñ lee ñaari junne lay jar fekk na ñaar junni yooyu ñu jar ñuy wax moom lay jar waaye nag ak kañaanam dugal na ko ci ngir moom munta mukk bàyyi ci xol bi tiise bu seer boobu foor boobu kii di ko solti moom solu ko kon faw mu sikkal ko nga gis ne kon kañaan baaxul nit ku añaan euh, doy na waar daal doy waar goo xam ne daanaka soo ko mayee sa yëf sax yàq nga ko ndax lu tax mooy buy génn la muy wax mooy amu koy day tiitaru rek mu ngoog soo ko dimbalee du gëm ne da nga koo dimbali daf naan da ngay tiitaru da ngay wane woo daal lay commencé indil ay sikk te kañaan ngaa ko yóbbee nit nag gannaaw nag jëfi yàlla rek fu mu toll di ko suul loolu dooy na màndargam sawara nitu sawara gannaaw foo toll yaa ngi suul jëfi yàlla yi yaa ngi suul jëfi gaa yu baax yàlla baaxal yaa ngi suul daraja yi ñi yàlla jox daraja foo toll yaa ngi koy suul kon allah kulli kañaan nekk na jëf ju ñaaw joo xam ne lu ñu tagg tagg nit ci ak jaamu yàllaam lu ñu tagg-tagg nit ci bëgg diineem lu ñu tagg-tagg nit ci jàng alxuraan lu ñu tagg-tagg nit ci am ak taalube bu nee waaye nag dafa añaan sooy ba ñàkk ca yaakaar eh, ni ñu def mooy ñu dem rësi déglu eh, sunu eh, publicité spéciale bi te moo di Kool Touba soog a dellu ci biir waxtaan bi. allo Souleymane papa. waaw sa soxna si maam Diarra. maam Diarra dafa am doom. crédit bi jeex na. Mouhamadou Lamine sama papa dafa ma woo léegi crédit dem dagg. des desuloo foofu carte. waaw Souleymane xanaa xam nga Kool Touba. Kool Touba. toogal ma woon la. Kool Touba. site internet la boo xam ne nii foo mën a nekk ci àdduna bi mën nga jëndal crédit ku la neex. sa baay boobu la doon woo léegi mu dagg mën nga koy jëndal crédit léegi mu jot ko ci portable. ah bon bien sûr maam jaara moom mën nga koo jëndal. man nga jëndal crédit say am di jàmm say xarit te rax ci dolli boo nekkee fii ci États-Unis wala nga nekk Canada non seulement da mën a jëndal keneen mais di nga mën a jëndal sa bopp et en toute sécurité. damaa tàmbalee wax rek. Uh-huh. ne ko uh, maam Diarra am na am na gone. kër ko wax ko am naa doom rek yàlla baax na. wax naa ko ko. Ah. waaw waaye kër di baa jeex mu dagg. waaye jot naa ko wax moom ne ko am nga doom. ah man de jot naa crédit. am nga crédit. crédit bu bari sax. Ah, jógee ci service bu ñuy wax Pôle Touba. woo woo ko yeggale ko wax ko doom doom ji na ko doom ju góor yi. kon kon amaa ko ci woo léegi. ci la waaw waaw woo ko ci waaw. Ah, maam. waaw. dikkal naa xoolal ma sama portable daa sonné. ah day ma. xaw ma lu mu doon. ah yow it de message bi lañ la envoyé. muy la gis bu ñuy wax Kool Touba am nga crédit. am naa kër gi fu mu ne. kon dañoo bokk ko envoyé kon. ah waa ji Kool mu amul morom. Kool Touba kay xéwal. Ah, Kool Touba mi mu ngoog kon euh, sëriñ Bassirou Seck dégg nga euh, sëriñ Abdoulaye Sarr fi mu daanelee ci kañaan. sëriñ hmm, Ibrahima euh, waxati ngeen lu am solo xanaa kàddu yi ma ciy dolli rek mooy niñ ko waxee ci kañaan damay dégg léegi. ñuy wax ne kenn mënu koo jeexal na xalaatal naa ko sax waaye yàlla def ni ñëpp daje yéen toog ñëpp dajewaat ngeen ci kenn mënut a jeexal thème bi kenn mënu ci waxum jeex ndax dafa yaatu euh, dinaay faral dégg boroom xam-xam yi ñuy wax ni ki ñaan day lakk jëf ju baax ni sawara di lekke mat kon ahsana laaw mi laa kon moo yées mm-hmm. ndax jëf ju baax ku tedd fii moo la saral ku tedd fañ jëm ëllëg it moo la kon ki nga xam ne mi ngi def lu baaxam te boole ci kiñaanam tax kiñaan gi topp ko lu mu def ci lu baax mu lekk ko ahsan allahu minna sëñ Ibrahima ki la topp loo def lu baax mu mu lekk te amul kenn ku ko mën a faj waaw bis bu demee ba dëppatoo lu muy lekk nu muy def yàpp sës mm-hmm. mu lekk la kon nga xamee ni kon kiñaan daal ki ci nekk Euh, daf koy lu daf koy topp di lekk lu baaxam di lekk lu baaxam di lekk lu baaxam ba bis ba nga xamee ne ca li ñëpp soxla lu baax bu karogee mu lekk ko moom ci boppam mooy sawara nit ñi ni sawara di def mat ni la ki ñaan def jëf lu baax kon kum topp bu la bàyyee kër gu màgg a ngay mujj dem ba ëllëg rek mu tabal la mu sawara jël la lekk la dëndix kon en sanalaaw mi naa kon kiñaan ndeke bu ñuy wax lu ñaaw moo fa yées bu ñuy wax lu bon moo fa yées te dañuy wax ne ki gën a ki xolam gën a tàng ki nga xam ne ab xolam moo gën a tàng sawara mooy xolub ki bañ waaju baax mooy xolub ki nga xam ne ku baax ki lu mu def ci lu baax mooy ñaane kooko ku bañ ku bañ ku baax kay <laughs> ku ne xam ne yaa ngi ci musiba waaw ki yàlla bëgg yow nga bañ ko yaa ngi ci musiba kon daal sëñ Ibrahima iñaan kenn mënu cee kenn mënu koo jeexal ah, kon daal lu doy kimaan ngoog waaye xam naa ni ñuy daal def rek kon ñu jéem a tàggatoo ak bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan eh, di ko defe ni ñu koy defee toujours di leen ñaanal jàmm di sàkk ci ñoom ñu di ñu ñaanal jàmm di ñaan ci yàlla nag mucc ak mosu yàlla am na ko yàlla nañu ko yàlla boole ci daraje Serigne Bassirou Mbacke barke Ahmadul Khadim allahumma salli ala kon Serigne Abdoulaye Sarr ñu dellu la kàddu gi. waaw jërëjëf Cheikh comme fi nga jeexale rek fi nga tàmm fi nga tegal la fi nga mujjee rek foofu lay tàmbalee. ndax euh, xol bu kañaan ne moom borom ci bekkoo rek lay dëkk te it yàgg-yàgg safara rek ndax dégg ci woyoo sëñ Tuubaa ngi ci wax naa xulloo bu ma lam yuhibbuuni wala wajalin wala yow laa xonama raama wala baaba yém ci yàlla musal kon xol boo xamante ne bii kañaan da caa sos rek moom yàgg-yàgg-yàgg moom safara rek te safara moom ko fa dem ku ne mooy safan ba te képp koo xamante ne bii iñi nit ku iñaan foo ko fekk ka muy iñaane mooy jëm kan waaye moom mi nga xamante ne bi iñaan na toujours de suuf rek li jëm day bekkoor mu ko ci bekkoor lay dund ci lay dee ndax dafa dafa fekk lu yàlla dogal mu weddi ko xam nga wax nga ko ci sa biir wax ne kuy bëreeg yàlla doo ci am ndam mukk yàlla def nga du noonu lii la waroon a def yàlla ñu ci musal ndax kooku day loo xamante ne bii lu garaaw a garaaw a garaaw kon keñaan daal tomb la boo xam bii ku ko yàlla nattoo ku nekk ci doo nga am am coonob adduna da nga am coonob àllaaxira mm-hmm. ndax ku dul yéene kenn ku ku dul yéene kenn aw yiw mm-hmm. foo ñu def fekk yaa ngi dox ci safaan ba yaa ngi koy wax yaa ngi koy xalaat yaa koy jeex yaa ngi koy def te loo mën ci yàqal doomu aadama yaa nga ci mm-hmm. kooku nga defee ne moom danga am jàmm doo am jàmmi adduna doo am jàmmee àllaaxira yàlla ci yàlla musal kon euh, képp koo xamante ne bii euh, yàlla dimbale na tomb boobu ñox kañaan néew teew rek war ngaa gën a sant yàlla war a gën a war jaamu yàlla ndax day loo xamante ni bi ci xol lay ne te ci xol bu mu nekk bu nekk bekkoor rek du jëm kanam moom te am na lu tubaab bi wax naa ne la méchanceté est un plat qui se qui se mm. maanaam keñaan palaat la boo xam ne bii nit ki iñaan ki boppam moom lay dundee kuy dundee iñaan nag xam nga ne kon dootoo jëm kanam moom mi ngi mel ne garab goo xam ne gi dañ ko samp te duñ ko suxat samp ko ci digg ci tàng jër bant buñ tooy ñu samp ko ci bu suuf tàng bañ ko suuxat yàgg-yàgg dee rek hmm. loolu rek looy def day ronger xolu ba borom bi ba ki nga xamante ne dafa dafa keñaan di ko macc xol bi di ko ratt di ko ratt di ko ratt ba xol bi xëy dagg mu xëy dee bu dee nag dem safaan bari la jëm hmm. dem ci yàlla musal hmm. musal ci bépp jullit euh, di euh, delloowaat kàddu gi rek Ibrahima te di la xamal ne rek ñun suñu waxi démb mooy suñu waxi tey ñun daal askan wi leen fi nekkal doon seenub taalibe doon seenub jàmm doon ndongal Daaru Rahmaan waxtu woo xamante ne bi euh, soxla ngeen ñu rek muy guddi muy bëccëg rek euh, bul ci am lenn looy xel yaar yow moom yàlla dimbale nañu suma xarit nga suma wëllëre nga suma lépp nga yàlla yàggal na ànd bi di rafetlu jotaayu sëñ Basiru mi ndax vraiment moom itam euh, li tax nga boole ko ci émission bi xam naa ko ndax xelam matale na ko dayoo matale na ko xam-xamam mate na ko te xolam bu rafet ak laabiram mate na ko ndax li mu wax lépp njëriñ la kon yàlla nañu yàlla may dégg ak topp. képp bépp éditeur boo xamante ne bi yaa ngi sur site bii yal na la yàlla may dégg ak topp te leen xamal ne leen ñoo ngi jox da leen di jox daje beneen yoon waxtu woo xamante ne bi Ibrahima soxla nañu rek kemtalaayu kattan suñu xam-xam bu gàtt rek li nu am ak néew ak it li nu ci yéenee ñu baaxee leen ko te ku ko ci dégg it nga xam ne lu ci baax ci sunu borom la lu ci lu ci dëngit xam ngeen ne ci matatik doomu aadama la tax bu ñu sañoon wax loo xamante ne bi ëllëg ak si biir ñi danañ ci mën a jariñu te ku ci mën a jariñu ku nekk wala li ñu wax kenn ku nekk ci sa bopp te boo ci gisee sa bopp nga mën ko jariñoo kon Ibrahima kon ñoo ngi lay jox dig daje beneen yoon di ñaan yow itam yàlla na yàlla guddal sa fan may la gudd ak yaag Seex Basiru mi gudd fan ak wér ak wérle doolu sutura seeg teraanga ji yàggal la ci kanam askan wi ndax yow moom njariñal askan wi li ma la waxoon rek ne la yow ministre la culture de la war di fay ndax njariñal askan wi nga ndax sa xalaat ak sa yéene ak fi ngay li ngay jëriñ askan wi li ngay jëriñ la génération future yow normalement repère nga war a doon ci la génération yi ñu nekk repère nga ci war a doon te it maanaam euh, symbole nga ci war a doon royukaay nga ci war a doon comme Ibrahima yal na la yàlla gën a bàyyi sama xel ku la bàyyi sama xel yal na la gën a may wér wérle te it site bi yal na ko yàlla sàmm ter yonte bi ak sëñ Touba euh, sunu man bi ñoo ngi koy sant moom itam di ko gërëm xale bu yaru boo xam ne bii moom ak wàllu technique bi ak wàllu yi ak ñi xamante ne bi ñooy monté lépp ñoo ngi leen sant leen gërëm te leen jox di jaay beneen yoon yal yàlla may fekk bi yaayante bi ak sëñ Tuubaa amiin jërëjëf euh, sëriñ Basirou Seck jërëjëf itam euh, sëriñ Abdoulaye Sarr taalibe sëñ Cheikh Mbacke Darou Rahman euh, fa tabarakallah waxtaan wi am na solo rafet na noonu nga ko waxee itam noonu moo nekk ci yow yow daal yaa ngi fi nekkal askan wi lépp loo xamante ne bii mën nga ko te muy luy jëriñ askan wi rek waxtu ñu la wax muy ko di muy bëccëg da nga daal di teew si ak solo boo mën a am kon ñu lay sant bi di la gërëm di la ñaanal yàlla na yàlla defal la ndam ci lépp loo xam ne dëgmal nga ko kon nag mbokk yi nga xam ne yéen lañu jàkkaar lool fii ci alazhartouba point com ñi leen doon defal waxtaan wi mu di Serigne Bassirou Seck suñu invité tey nekkoon <coughs> Serigne Abdoulaye Sarr moom itam Euh, équipe technique ñu ànd ci ak euh, ki nga xam ne sunu caméraman la di euh, Mame Thierno fay réalisation Serigne Sohaibou Mar Lamine Touré nekkal ñu rësi waaye nag ci montage bi ñu ànd ba tey ak Serigne Sohaibou Mar ki ñu doon présenté émission bi seen mbokkam taalibe bi seen xarit Ibrahima Ndiaye di leen jox incha allahu di daje ba beneen émission ci beneen thème incha allah.